maintenant yëpp dañ koy indiwaat actuellement événement yi am nii lundi rek incha allah ku caa show namante la rek ñu seeti Madické Niang moo Karim Wade ca Qatar téléphone ba. Kara jot na sama téléphone yow sax gars yi namoon nañ sa kanam ñëwul allo waaw Karim ah du Karim ah wa Abdallah Zoyna. Zeyna Xattan Zeyna Xattan kay Zeyna Xattan wasa bii baa ah Karimul ayni Karim Wade wasa ayni Adja Khoudia may ma garde corps bi laa jot damay wax ak Karim ko jot Abdallah laay waxal waaw Abdallah ma dikkee ñaa ancien ministre dugg kii c'est moi entre dans avion du procureur de Qatar I not speak French waaw mi tamit I not speak English because little English arab waaw Zeydaani Wasuuni waaw Karim Wade laa bëgg waxal eh, kii de déggul Adja Khouta ki may waxal déggul olof déggul français anglais lay wax te samay anglais soriwul te Karim nee na xamul wax Karim waa Abdallah wasaani ka liilu waaye waaye abdallah bii du ma jottale karim abdallah wa baanikal wuuli abdallah ajaa ku jama jama waaw karim wadd waaw mati kaña mister mati kaña mister yes waaw karim goomi karim goomi mi mi waaye waaye waaye ndax wax dëgg yàlla moom Karim nag wax na jël téléphone am di ko jox nag ñoo xam ne dañuy dégg olof wala ñu wax français. Adja Khoudia na ma ñëw yal naa ko jotaat allo waaye Abdallah where Karim ay bikini bikini man xaw ma sax wa liilu kay Karim Wade li Karim Wade Ablaye Wade. zaanakal wuuni maakul xaytun ma miinu budukun batan waaw kay wa batan wa batan mi batan waa batan batan waaw ma dike batan waa batan ñang waaye ajaa xujo kii nag moom wax dëgg yàlla li muy wax protocole Karim waxoon naa ko barke démb ni yëpp yaa ma ci dugal sa téléphone dee ko yor ma woo ko ci beneen kii bi mu jot bisimilah allo waaw c'est qui Mohamed Abdou waaw Madické Niang euh, Sénégal avion procureur Qatar waaw gunge wasaamana kalmuun waaye bu tur waaye bu tur bu ngang zaana kon wuquy baana kan wuuni maawu waaw ajaa xujo kii dafa mel ne dafay xuloog man de waaw ah, xaaral léegi lu ma wax mu delloo ko ko su ko defee dana xam ne li may wax moom lu muy wax waaye lu ma mu delloo ko ko bu ma ko delloo wax ji dina xam asalaamaaleykum kooku Abdallah zaama zaamakal wuu waa kay waa kay mat ka ñaawaaw waaw ma dikkee Sénégal zanakal wukilu nii waaw waaw waaw ñu ngi may jox Karim maa ngay dégg baat bi zama ah waaw waaw kay Karim foo newoon man xaw naa dee ah yow tamit Karim lii kenn du ko def yow tamit sa téléphone nga jox ko Abdallah jox ko Mouhamed may wax ñoom rek du ñu xam ah munatoo wax olof dañuy dañ la koy aaye waaw nu may def ba wax ak français sax bëgguñu ko dégg suñu waxee anglais dañuy dégg waaye Karim man li ngay wax ci arab dama koo déggul de ah ma déggula loo ah waa koy kon léegi xaaral Adja Khoudia jox ma sa téléphone bi mu Karim lu wax ma waxaat ko mu enregistré ko bu ma demee ci ustaas tey soose mu firil ma ko waa kay maa koy wax waaw waaw zaanakal muqi Karim Wade saana man muuj yóbbante waasa kan waa waasa kan xee baatan buutun baatan buut baatan prison maana kun muuni kaa ah Macky Sall ah waana mu luuli ka mi waay delluwaat ci waana kan muuti butur butur bañ ñuqule ba waay delluwaat ci batar batar waaw ne ko ku caa doon waxee rek batar waaw batar buuti buut buuti xutti muucu zeyna waa tuuba waa kay tu ilaa tuuba dégg naa ko tuuba ilaa tuuba waa ilaa tuuba ilaa Tiwaawan waaw ilaa Kambareen waasakal wu mini kal na ay mi ki waasakal aana ah, muccu ay waay waay waay waay maana muccu waa Adja Khoudia li Karim wax laay man waxuma ak moom de xanaa déggoo nee na ma rek muuci batte zaana man wuli ka puuti kal wuli makalal wu ah topp ci rek waaw looy jooy dafa am lu la metti ah doo doo doo ah, bëgguñu nga xool faa waxal ma xool jooy saalum mag mi ci adu waana kal muuli asuma kal muuli baati waay waay karim jooy de metti nag baati muuti batar zone milliard ah <laughs> karim yow waa milliard trois milliards six milliards ah ah waale gal waale ah da kontaan wayli wayli wayli wayli batar batar wayli zana ah déedéet déedéet xale yay foofu waaw ah, dañ lay tere wolof baatan buutun zaatun farti xanaan albaa almuuti albutur albatar alniqi sukun daaban muuting million triyaga poore halla eh halla ya allah ya allah woo